waaw dañoo tekki ndombal tànkam te yéex nañ ko def parce que biñ ko naree def mooy bi travailleurs yi commencé yuuxu parce que en six ans ñu jox ko plus de quatre cent ñu bokk de cinq cent bus mu fekk fii plus de cent cinquante bus muy six cent et quelques bus mu fexe ba kaar yi yëpp kaar bu paan mu gaaree de du ko defar du ñu wax ne ñàkk xaalis moo tax. jaay na suuf Dakar dem dik façade bi yëpp la jaay te newoon na cat yi lay jaay mu fenn fenloo ñëpp mu fen ñëpp ne cat yi lay jaay pourtant jaay na façade bi yëpp kooku benn la deuxièmement état jox ko plus de seize milliards seize milliards yooyu suñu xaalis la ala suñu alal la bi ñu liggéey depuis 2006 ba 2016 moom tuuti la ci fekkee ñu jox ko xaalis boobu muy 21 milliards liggéeykat yi ci demi diggante 2017 2018 ak 2019 liggéey nañu 40 milliards muy 61 milliards ci diggante ñaari at naka la nit manee saax saaxee milliards te mënuloo dépense dërëm 15 buy dépanner kaar yi ba tey jii kaar amatul Dakar Dem Dikk minibus yi nga xam ne ñoo mujjee ñëw ñoom ñoo ko sauvé. fu mu ne nii te ce n'est pas adapté au transport euh, euh, urbain donc ñun li ñuy lancer un appel au président de la République dañ ko limogé rek mu ne moom day dem en France le 4 pour mu dellu si le 9 ñun pour ñun nañ ko téye Dakar bu mu dem ba def la reddition des comptes buy dem France lu muy yóbbaale xam ngeen ko bu demee France ndax citoyen français ndax dina ñëw est-ce que xam ngeen ko kenn xamu ko ñun dañu ne bu ñu la limogé la reddition des comptes xaara ba nga def passation xaara ba ñu audité la mu wóor ñu ne danga nga set wecc balaa ngay dem waaye ñu ne la dàq nañu la rek nga ne may leen ma ma daw France te ñëw wóorul Macky Sall la ñuy waxal na téye ngóor si ba ñu ko ñu def ah, ko kii audit ba mu leer nañ ne suñu xaalis fu mu ko dugal 61 milliards en deux ans fu mu ko dugal te paanal 685 euh, car loolu lañ soxla xam te bul bàyyi Moussa Diop mu dem tant que amul amul euh, reddition des comptes. mu def léegi publication di gërëm président Macky Sall tey di tàggu euh, ñi mu nekkandool ci Dakar dem dikk naka nga yaakaar ne doonul kokkali bu muy def. non xaw ma ndax kokkali la wax am déet waaye nag jéem na maquiller demam pour ñu ne dafa laal troisième mandat ñu dàq ko dàq bi du dàq politique de mauvaise gestion de 2006 mille 2000 de 2000 2014 à nos jours. on a injecté li ñu fa dugal ci alal li ñu fa dugal ci oto li ñu fa dugal ci lii wala ci laa bëri na bëriwaay ba nga xam ne ñooñu ñun ñoo yuuxu ñu door a xam ne li ñuy wax dëgg la dañ ko ko laaj mini con mini conseil bi ñu ko laaj dañ ko laaj xaalis boobu am fu mu dugg mais na xaar ba mu tontu loolu bu tontuwul na xaar ba ñu audité ko waaye nag daq nañ la nga ne maa ngi dem France te ñëw le neuf lay ñëw déedéet wóorul Macky Sall nañ ko teel. ba ñu def la reddition de comptes balaa balaa ñu koy bàyyi mu dem.